dara mais nag ku jalgati boo wéeteeg sa bopp xam nga ni da ngay jalgati ku jalgati nag dafa am lu ñu warloo ak yow donc nañ leen jàppalante lamb la dañoo bokk euh, yoon wu ñu jëm muy lamb moo leen tax moo leen yitteel ñun ñu nekk ay acteurs nañ leen def benn convergence de vue converger suñu ay effort ba atteindre suñu ay objectifs loolu la ñu ni woon dinañ ko waxtaanee waxtaane nañu ko bëgg it lancer un appel li xew ci làmb ji ñaaw na gañeek ñàkk gañe yëpp di dajji ay siis loolu rafetul ñaaw na ci arène boo xam ne 32 milliards la bii mooy suñu première année buñ ko fas yéene exploité pleinement parce que bañ ko ubbee rek dañoo dugg ci mbas mi mhm. kon ñun buñ ko exploité woon année lëmm ba mu jeex xanaa dara dootu fi des donc dafay jaadu yéen ñi nga xam ni yéen la yàlla dénk xarala yi ngeen di jotale ngeen jàpp ci communication bi parce que lii bis bu ñu yàlla nattoo ba décor bii jóge fi ñun nous serons mal accueillis te it su boobaa dootuñu taxawati ci benn sponsor wax ko lu ñuy lu koy convaincre mu jàppale làmb doot suñu image dootul rafetati te it gàcce danañu topp ba fu ñu jëm gàcce googu am na ñoo xam duñu recevoir gàcce jàppale leen ñu ci loolu mbër yi yéen a ngi may dégg euh, waxtaan leen ak seen fan club yi waxtaan leen ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale disposition yi ñu fiy fekk nañ ko respecté respecté sécurité bi respecté infrastructure bi respecté waa seen g respecté promoteur bi nga xam ni mu bareeg mu tuuti mooy dem fortaatu ay kopparam am yéene ci temps de mbër yi fi nekk nome la kooku boo ko respecté wul rek boo toogee wéetaat ak sa bopp war ngaa mën a dem tekki sa ngem loolu daal la ñu fi tënk di lancer un appel à la collaboration dans la solidarité une collaboration dans la solidarité cela veut dire une collaboration franche sincère ba bu ma gisee tey lamin wala gis pël kenn di ko néewal doole ma mën a simi suma vest bi jël ko kon Papa Sow Siteu yéen dafa am taxawaay boo leen ci war a taxawee dafa am loo leen ci war a wane te su may waxit xam ngeen lu tax ma wax loolu moytu leen ñu naan leen yéen ay yàq moytu leen ñu naan yéen yéen ay def lu defuut loolu ça ternit votre image une image ternie c'est une image boo xam ni négative loolu daal laa ci li may wax di leen baal ak di leen baalu ak di leen jox rendez-vous incha allah di jox rendez-vous boobu wax dañ koy defar di jox rendez-vous ñi nga xam ni ñoom la ñu accrédité je pèse bien mes mots ñi ñu accrédité gilet gilet yi nos gilets yi c'est pour votre protection c'est pour sauver votre image même là où je ne suis pas ou bien je serai pas là hmm. ngeen mën a affirmer wu avec cette identité pour montrer que ni vous êtes dans quelle structure mais ñi ma war a jox sumay accréditation xam nañu ma xam naa leen tel que soit la nature de l'influence telle que soit la proximité que j'aurai avec cette personne ou bien avec cette structure cotise pas njàcc pas merci euh, lu mu jar pour que ku nekk boo ci duggee am loo yëg bu soobee yàlla di nga yàlla na yàlla def jàmm